jërëgeen jëf yéen waa taskatu xabaar yi fii ci commission nationale de recensement des votes dafa doon aada lu ñuy def ñu koy def ak presse bi loolu moo tax dañ daan def xaar bay tëj soog a woo presse bi mais tey dañoo xam ni presse bi témoin la boo xam ne ñun ah ci la ñu mën a sukkandiku pour ñëpp jot ci li ñuy liggéey loolu moo tax ñu jëkk a commencé pour boo leen normalement dama waroon a am membre yëpp pour présenter leen ko mais am na ñuy ñëw am na ñoo xam ne nii ñu ngi ci yoon wi ak seguñu euh, commission bi ni mu tëddee mooy ñetti magistrats yi ko seq ñaari représentant pour benn titulaire ak benn euh, suppléant pour candidat bu nekk am na observateurs yi ngeen dégg yëpp dañuy toog suñu suñu wet am na aussi observateur nationaux yi ñu ngi fi am na itam Sénat parce que ñun mënuñoo liggéey dara mu bu baax te Sénat toogul loolu moom moo dañ moo moo tax ñu bëgg leen ko leeral bëggoon nañu leeral leen itam amul procès verbal boo xam ni PV euh, dina ñëw ci suñu kanam te jógewul ci commission na euh, départementale de recensement de vote commission départementale de recensement vote votes cinq départements yi bu ci nekk am na fa ñooñu rek ñoonu mën a jox seen procès verbal ci li ñu liggéey procès verbal boobu ña leen to ña toogal candidat yi am nañ ko Sénat am na ko ci la ñuy liggéey ba gis euh, juboo ci bu ñu ci juboowul magistrats yi ñoom ñooy tranché li nga xam ni moom moo ñu féewale ki nga xam ni d'accordu ci dina bind ay observation te yoon daf ñu sas ñu jël observation yooyu boole ko ak suñu procès verbal yóbbu ko ci conseil constitutionnel loolu mooy liggéey bi ni mu mën a demee mënu la jóge feneen lu dul ci ñooñu te ñun ñi nekk ci commission euh, national de recensement ñun rek la yoon may ñu mën a redressé maanaam bu amee erreur mbaa ñu annuler donc amul benn baat bu mën a jóge fen bu dul fii ci ñun ñu ni loolu mooy wéy ci élection yi ba jëm ci conseil constitutionnel loolu laa ne woon naa ko partager ak yéen di leen gërëm ci seen teewaayu qualité ak euh, teewaay bu takku di leen xam ni bis bu leen neexee commission bi ubbi na buntam pour ngeen mën na di ñëw di témoigner di xool li muy liggéey ba keroog ñuy ñuy ñuy tëj loolu laa leen doon wax maa ngi leen di sant di leen gërëm voilà.